générique bi départ na wasaara lamb tàmbali na ak Baye ji li ma ànd ceeg sama sëriñ bi sëñ Basiru borom dëgg beeg taar bi waaye daal bu a wér la baax a <laughs> laa la bu a wér a wér naka ngi am jàmm bu baax maa ngi bu baax lamoon eh, laa la nag fii moom ku ne toog la fi bee yow bu baax a baax maa <laughs> na noo def coono maa ngi sant bu baax mbaa yaa am jàmm alhamdulilah maa li ma gën a nam mooy Adrien Senghor gaal gi yu mel noonu. ah man ngay man ngay tooñati ci tukki bi. ah sëñ Bass Zor <laughs> bu ma toogee ba sama xel dem ci sept place. Ah. damay am lu ma métti. ndeysaan. <laughs> sept place laa doon dugg rek yor dugg suum. <laughs> ndeysaan billaay. mais làmb yëpp teg leen. billaay làmb leex la sëñ Bass fi mu toll nii actualité yëpp yëpp yëpp yëpp fi mu toll nii làmb lañuy ñuy waxtaanee ngir euh, feebar bi nga xamante ni dugg na ci réew mi. te lu bëree bëri ci réew mi waaye ñun njoñu làmb fi mu toll nii moom yëgatuñu suñu bopp ci dara dara dara. déedéet. Mm. dañu ko yëg bu baax nag. Mm. Mm, mbir mi moom ñun. yëg nañ ko bu baax parce que ñoo xam ne nii semaine bi di nga ci dem tolloo ko ay quatre programmes. te yooyu yëpp programme yoo xamante ne nii saa euh, làmb yëpp a koy xaar. loolu beneen affaire mois bi doo xam ñaati journée la. ci lutte sans frappe lutte avec frappe open press. conférence de presse ak yooyu nga xam ne day dundal làmb weer bi rek li hmm. ci am ci signature contrat yi dul jeex c'est xam a internet yi sëñ Basiru borom mbég beeg taal mi ji laa ci àndal tey maa lay siyaar bu baax a baax di la nuyu di la bàyyi nga nuyoo la yàlla na yàlla nangu siyaar ah ñu may ah, <laughs> ah. waxtaanee mbokk yi ci benn ponk boo xamante ni gis nañ ko ci làmb ndax fan yëpp wax naa la ginnaaw bu ñu nee wasaare làmb lépp loo xamante ni euh, rëq-rëq la wala luy defar ci làmb bëgg nañ koo defar waxtaanee ko ba mbokk internet yëpp ku ci nekk gis sa bopp tey ñu bëgg a waxtaanee ci kenn koo xamante ni kii mbër la euh, kii entraîneur la muy Gris Bordeaux ak ki nga xamante ni mooy Moustapha Guèye euh, sëñ Bass Moustapha Guèye dafa nekk écurie Fass nekk seen entraîneur euh, doon seen directeur technique euh, yor fa ay xale tàggat leen do avant dara mu nekkoon mbëru écurie Fass yëkkati flambeau bi euh, yóbbu Fass turu Fass fu nekk indil leen façon ndam lu nekk tey mu dem ba génn ci li ci ci li nga xamante ne mooy Tigre de Fass jël lenge bi jën jébbal ko ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux tey làmb di dox di dox di dox ba mu am relation bu mu am ak Balla Gaye est-ce que ñu est-ce que relation mbër mun na nekk euh, entraîneur mun na nekk ci écrit am beneen relation ak mbër ci loolu laa njëkkee balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw euh, loolu moom li ma la siy tontu lu la. bu hmm. duggee ci ci ci waxtaan ñu détaillé ko. Hmm. mooy man boog de ma part personnelle. Euh, gëmuma ko yaakaaruma ko xalaatuma ko aussi. Hmm. pour man entraîneur. bu yor écurie nekk ci écurie hmm. ñooñu la war a entraîner hmm. euh, directeur technique bu nekk ci écurie aussi ñoom ñooñu la war a la war la war a gérer hmm. loolu moom bu fekkee ne Moustapha Gueye day manager Balla Gaye manager nag du en tant que nekk manager mais nit ki booy booy booy liggéey ci carrière rek bokk nga ci ñu koy manager mais tey bu fekkee dafa am ay relation personnelle digganteem ak Balla di liggéey ak moom alors que mu ngi liggéey écurie Fass loolu moom du lu jaadu. Hmm. tegu parce que loolu dafa dem ba mujj gi euh, dafa mujjee jàpp Gris Bordeaux ba combat bu Moustapha Gueye euh, bu Gris Bordeaux jël suñu papa Moustapha Gueye da koy yëg euh, démarché ci combat bi wax ci ci ban anoom lañ ko war mën a jëlee digganteem baag ak Balla Gaye baa ba taxaw Gris Bordeaux jël ko te Moustapha Gueye yëgu ci dara moo lay wan ne Gris Bordeaux am na lu muy moytu ci mu Gueye est-ce que ki nga xamante ni moo nekk sa directeur technique war ngaa mën a dem ba làmb boole leen ba nga koy moytu euh, di dugg ci dara loo xamante ne du ko yëg. donc c'est une première nag ci làmb. Mhm. mooy tante moom mën naa ne ba làmb xewee ba léegi am na. Euh, des fois da nga doon moytu sax say euh, say moroomi mbër yi nga bokkal écurie mm-hmm. dem làmb boole laa keneen nga gis ne kii xaw naa jeganteeg moom wala bokk naa ak moom écurie dootoo ko ñeme à cent pour cent mm-hmm. ba ci biir écurie bi sax contact yi boo xoolee da nga koy moytu parce que yaa ngi xalaat leneen moytante da doon am ba ci biir koñ aussi mm-hmm. des fois da ngay am ñoo xamante ni ay mbokki mbër lañu Mm-hmm. nga war a seq ak mbër yooyu noonu donte dëkk ngeen dëkk bu baax mm-hmm. euh, am ngeen ay relation yu baax ci kon bi mais teew da nga leen di xel di moytu ba làmb ji jeex mm-hmm. moytante aussi da doon am ci ay manager tey boo gisee ne kii manager diw la wala mës naa manager diw loolu aussi da doon am ay moytante ci mbër mi war a bëreeg beneen borom mbërëm mais li raar li mu mësul dégg mooy mbër muy moytu euh, de manager am ci boppam. Mhm. wala muy moytu directeur technique u écurie wala muy moytu entraîneur am. Mhm. moom lu bees la parce que mën naa ne sa frère yi sax ni ñu lay jegee entraîneur bi ni mu lay jegee moo ko raw. moo ko raw dëgg la ki nga xamante ne nii lépp lu xew ci biir géew bi mooy jiitu ci yow. Mhm. lépp lu ñuy def si yow ci làmb ji da koy assister da koy xool. entraînement bu fekkee ne trois mois la làmb ji diir avant. moo ciy ànd ak yow guddi ak bëccëg ba ba làmb ji di jot. Hmm. kooku mën ngaa moytu ñëpp mu des moom. Hmm. mais nag làmb dafa toll ci situation boo xamante ne nii nit dana fi moytu sax frère bu mu bokkal ndey ak baay. Hmm. te ñoom ñaar ñu nekk ay mbër. parce que li ko waral mooy bu ñu demee ba léegi ñoom association des managers managers yëpp bokk kuréel di bokk di toogandoo di waxtaanandoo. ñoom association des promoteurs promoteurs yëpp di toogandoo di waxtaanandoo. dañu jàppoon ne fa lay yem. bu ñu demee ba am association des lutteurs en activité. Mm. mbër yi nga xam ne ñooy bëre seen biir di moytante dans les normes dem ba bëgg di daje di waxtaan di toogandoo seen biir. Mm. boobaa làmb mu ngi commencé jël beneen jéego boo xamante ni jëmut kanam. Mm-hmm. bu ñu demee aussi ba nga xamante ne nii tey mbëri seen jëmmi bopp mën nañoo jóge fii nii wuti xarit bu dëkk bërëb sàngam wuti xarit bu nekk écurie sàngam nekk ak diw mu nekk écurie sàngam bàyyi sa sa sa manager kii ñëw nekk sa euh, sa du ma ne entraîneur sax mais ñëw nekk koo xamante ne à cent pour cent mooy ànd ak yow ci ay combat ñu koy hmm. wax euh, euh, sa sa agent hmm. donc làmb day jël beneen tournure boo xamante ne nii bu mbëri nekkul ay professionnel ci xaajaloo la ñu jëm ci chaque jour ci réeroo la tey ñu dem ba léegi fi mu toll nii ci mbër mi ngay wax mbër mi nga xamante ni tey xamewuñ ko woon muy moytu ay entraîneur am ju dem demee noonu est-ce que entraîneur bi moom ban wan ban melokaan la war a mën a wane ba mbër mi ñeme ko am fitu fu ko entraîneur bi woo muyu ko euh, heure bu nekk nga mën a dugg këram yee ko parce que entraîneur bi moom ban ban ban ban ban wane melokaan la war a wane moom it. waaw xam nga mbër ci écurie dafa am ay responsabilités. Hmm. am na lu la tënk ci écurie bi loo xam ne chaque jour da ko war a matal pour mën a wane ne yow yaa ngi doxal li écurie bi bëgg. Hmm. entraîneur aussi noonu la amee ay responsabilité ci écurie ba ci président bi ku ci nekk am ngay responsabilité. Hmm. mais jii man dama naan mbër bu demee bay moytu entraîneur am rek. Hmm. c' est parce que entraîneur dafa dafa wàcc yoonam. yoo xamante ne dëgg entraîneur dafa wàcc yoonam. parce que tey entraîneur bi objectif principal am moom mooy coacher mbër yi nekk ci écurie bi. ba pare fexe di def le tout bàyyi adversaire am ñoom duñ ko ëppale dara ci wàllu physique duñ ko ëppale dara ci wàllu technique duñ ko ëppale dara ci wàllu tactique. Mm-hmm. bu amee combat mu liir ay adversaire am liggéey ak ñoom ci base boobu. Mm-hmm. bu amul combat aussi mu xool ñan la ko làmb booleel bu saison bi tijjee xam ne ñii ak ñeeg ñii waru leen a mën a rëcc. Mm-hmm. mu teel leen a jàngat ne ah diw mii kat peut-être mën ngeen a bëri léeg-léeg liggéey ak moom ci loolu. mais bu tey entraîneur demee ba wàcc yoon woowu. mbër dana ko ñeme mbër dana ko yàpp hmm. euh, directeur technique aussi lii ay responsabilité am nekk ay obligation ci làmb mooy tey moom écurie bi rek moo ko tax a jóg hmm. moom defendre couleur écurie bi mais défendre intére écurie bi moo ko tax a jóg hmm. tey directeur technique affinité bi coach bi di am ak manager bi ak ci mbër yi sax moom du ko ci fekk parce que moom dañuy doxal li écurie bi bëgg rek nga toog doxaloo li écurie bi bëgg ñu def suñu réunion dàq la ci biti Hmm. amuñu sentiment ci dara buñ la dàqee fàtte nañu la ñu ngi jublu ci kanam xoolaat yeneen bëri yi fi nekk di liggéey ak ñoom hmm. mais entraîneur mën nañ laa dàq ba pare du tee relation yi ngeen amoon ngeen kon ne di ko am des fois boo amee combat yëgal ko ko mu dox si ni ci war a dox hmm. euh, manager aussi mun nañ laa dàq équipe ba pare mu kon ne di la manager yooyu yëpp day am mais directeur technique moom euh, bu fekkee ne rôle am rek ci écurie mooy muy défendre intérêt écurie bi. Hmm. mais mënoo di défendre intérêt écurie bi nag defendre défendre mbër yi ba pare di défendre ay intérêt adversaire yu mbër yi. Hmm. loolu moom bu boobaa day nekk benn mbir boo xamante ni kenn xamul fan ngay yëkkati ak fan ngay teg. Hmm. Euh, bu ñu waxee ci le cas de Gris Bordeaux baa Gaye adversaire Gris la. même bu ñu demoon ba bàyyi làmb aussi adversaire la. adversaire am la. donc adversité day xel di dox seen diggante. mais directeur technique gu Gris Bordeaux dans tous les cas waru fee bàyyi Gris. wala mu bàyyi fi beneen mbër bu bëgg écurie Fass di am ay relation yu muy entretenir ak beneen mbër. li li li jiitu loolu mooy est-ce que Balla Gaye war na mën a am combat woo père Moustapha Guèye mu ànd ak moom di ko jàppale ci ci ci làmb jooju mu jëm. waaw Balla Gaye am na droit bi. Mm-hmm. parce que nag Moustapha Gueye quoi qu'on puisse dire mën ñoo xam ne ancien lutteur la. Mm-hmm. lu ne def na ko ci làmb. Mm-hmm. te période bi ñu toll nii bokk na ci ñi gën a reconnaître ay qualité ci wàllu technique ci làmb. Euh, ba bañ nañ ko sax ba ci ay débat am dañ koy gis dañu xam ne kii kat dañ koy apprécier de trop ci ay qualité donc kooku mbër même. boo doon bëri ak doomu Moustapha Guèye. Hmm. boo amee combat war nga ko appeer man kat am naa combat sama diggante ak diw diw diw loo may conseil ci hmm. parce que nit ku ku responsable la koo xam ne même booy bëreeg doomam dana la ne ah fils mën nga def nii mën nga def nii mën nga def ne yàlla mën na laa may ndam hmm. loolu aussi taxul mbër am ndam hmm. lii tax mbër am ndam mbër moo koy def ci digg géew bi mais conseil kese kese kese ko wut làmb for nañ ci weewu bay diggante Balla Gaye ak Modou Lo bi ñuy waaja bi ñuy bëri seen dernier combat Père Moustapha Gueye bokkoon na ci ñu doon jàppale Balla Gaye doon ànd ak moom entraînement ba yooyu yëpp déggoon nañ xamuñu nag ba xam leer na wala leerut waaye loolu yëpp déggoon nañ ko ci loolu bu amee est-ce que du yay euh, Modou Lo mi nga xamante ni tey adversaire u Gris Bordeaux la adversaire u Balla Gaye la Gris Bordeaux adversaire u Balla Gaye la adversaire u Modou Lo la ñoom ñooñu ku ci nekk war naa mën a laaleeg sa morom te père Tafa ku ko woo mbër pour man mbër bu la woo rek laaj la conseil war ngaa mën a yëkkati sa conseil jox ko ci li nga xam ci xam-xam bu néew bi nga am wala moo xam nga conseil ko fi mu war a teg ci lamb mais ànd ak mbër dem di ko jàppale ci combat pour adversaire am nii tànk bi ngay tegee nii nga war a mën a def nii nga war a mën a def parce que dem nañ ba génnee ay image yoo xamante ne pertefa mu ngi ko doon woon Balla Gaye naan ko nii ngay def nii ngay def nii ngay def te loolu mooy rôle entraîneur loolu moom bu ko mbër bu ko entraîneur demee ba koy def ak mbër moo xamante ne adversaire am ëllëg dinañ daje te boo xoolee diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye waxante yi doon waxante ci digg géew bi mm-hmm. xam ne làmb dafa garaaw Aziz Ndiaye wax na fa ba waat ne Père Moustapha waatal ku nekk indi sa mbër tey bu ñu demee ba mbër moomu tey jaraloon la ñu naan la waatal day daan sa mbër nga mujjee di àndaat ak mbër moomu day mel ne xel day mën a teey ci làmb ji. non si si xel day hmm. mën a teey te day jur lu bare bare bare bare. Hmm. parce que euh, bu doon beneen beneen élément la écurie sax mun nañoo mën nañ ko koo mën nañu ko euh, bañ a toppee. Hmm. en tant que directeur technique moom warta am ak ay relation ak benn mbër. ci côté ci côté jàppale ko ci ay combat lu dul ñi nga xam ne ñoom la bokkal écrit lu dul ñi nga xam ne ñoom lay manager hmm. loolu moo nekk principal la hmm. mais tey bu ko Balla Gaye sollicité moom fi mu waroon a yem ci sama xam-xam bu gàtt hmm. mooy mu jox ko ay conseil te yem foofu te xam ne suba làmb mën na koo boole ak Balla te bu boobaa li xewoon démb day taas ci li war a xew tey te làmb dafa xaw a yéeme gis nga euh, niñ koy jàppe mooy tey boo àndeek sama adversaire rek sama adversaire la. Mhm. loolu la ko ñëpp jaa jàppee boo mhm. xoolee en général ñi ànd ak des fois ci combat Modou Lo. Mhm. Balla da leen di jàppee adversaire. ñi ànd ak Balla ci combat Modou Lo da leen di jàppee adversaire. parce que adversité bi ci làmb noonu lay dem mais Père Moustapha Gueye moom fi mu waroon a limiter foofu ci dossier boobu mooy tey bu ko Balla sollicité comme li muy def yeneen booy mu jox ko xalaatam te yem foofu te bañ a seq ak moom benn affaire. bu demoon nag ba bàyyi làmb. bàyyi nekk nekkatul directeur technique. nekkatul hmm. dara. Hmm. bu boobaa bu ko neexee mën na xool ku ko neex ci làmb ji. wala sax mu génne ubbi du doon école mais mu am benn salle wala beneen affaire boo xamante nii tey bër mu am combat. Hmm. boo waxtaan ak moom ci ay base yu légal soit ci contrat wala ci leneen. ñu ñëw mu entraîné la comme ni ñuy dem di ko defi États-Unis di dem di ko defi euh, France. parce que foofu musculation rek moom moo fa am. Hmm. fii nii moom ngay gis nga nekk fi am ab technicien boo xam ne dund na làmb xam na làmb bëri na xam na technicité yi ci ne xam na njuunjaay ji ci nekk yëpp mu jàpp la entraîne la ba làmb ji euh, jot nga gis lim la waxoon. Hmm. mais bu dee da ngaa dem ailleurs aussi doole nga fay amee amee musculation mais technique u làmb moom fii nga koy amee. Hmm. donc ñu ngi doon xaar ci ñoom ku ci mel ni Père Moustapha Gueye ku ci mel ni Tyson ku ci mel ni keneen ak keneen ak keneen euh, ba ci ki doon def euh, mille prises yi. amoon na 200 rog mbalax mbalax ñoom hmm. ñëpp yóbbu benn centre boo xamante ne nii préparer mbër rek moo koy tax a du duñu am benn identité duñu far ci benn écurie parce que def nañ li ñu war a def ci làmb ba bàyyi hmm. léegi nag bu mbër amee combat da ngay ñëw inscrire soit ñu waxtaan ci benn base bu légal hmm. même bu waree am ay payoor ak genre yooyu noonu ñoo ñu entraîné la bu làmb ji jeexee donc nga kon ne dem sa yoon bu keneen amee comme ni ñuy def ci salle de musculation ñëw fay entraîné Gris ak Balla Gaye mën nañoo bokk salle de parce que ñoom moomuñu salle bi dañuy ñëw fay entraîner. entraînement dëgg la donc que moom salle bi kooku kooku la concerne. mais hmm. ñoom aussi waroon nañoo liggéey ci beneen côté boo xam ne du leen yàqal dara ci wàlla mais lii dafa bëri lu muy yàq daa bëri lu muy tas. Hmm. léegi fi mu toll nii taxawaayu écurie nga xamante ni euh, Père Moustapha Gueye entraîneur la fa Gris Bordeaux mbër la écurie bi fi mu tal nii nan leen mën a def ñoom ñaar ñëpp. waa écurie ba nag euh, dina xaw a yéeme tuuti parce que écurie Fass famille la d'abord. Fass moom ku wax wax famille. Hmm. parce que wax Père Mbaye Guèye wax Abbas euh, wax Moustapha Guèye ah ñooñu boo leen tuddee da ngay gis ay nit ñu ñu ñu yàgg lañ ay mbokk lañ. Hmm. donc foofu moom famille la ba ci mbër ya fa nekk et tout famille lañu. Euh, c' est difficile nga appliquer fa yenn yi mais dans les normes ni mu waroon demee tey écurie bu demee ba gis ne mbër mii kat. mu ngi fi bàyyi suñuy moroomi mbër. Hmm. yi nekk ci biir équipe bi di entraîné jeeg keneen. dañ koy dàq équipe parce que njortu nañ ni sax génn Papa amuñu ci lu leer nag. Hmm. peut-être relation yi mu am ak Modou Lo moo ko. Hmm. parce que hmm. Modou Lo adversaire u Gris Bordeaux la. Modou Lo adversaire waa Fass la. donc foofu noonu relation boobu xëy na mën na bokk ci leen déranger mais aussi mën na am yeneen i yoo xam ne nii bokk na ci li tax ñu génne ko foofu. mais loolu mooy taxawaayu écrit mbër mi boo gisee ne kii kat relation yi nii muy def wala li muy dox nii. bokkut ak intérêt écurie bi hmm. wala ñi muy àndal ay adversaire u xale écurie bi lañ nga woo ko mu ñëw nga ne ko da ngay bàyyi ñi ngay àndal parce que say adversaire lañ hmm. boo ko mënul nga quitté écurie bi hmm. noonu lañ war a def ak le directeur technique aussi boo demee bay na yeneen mbër yoo xam ne bokkuñu ci écurie bi staff bi toog ne laa attends yow kat fi nga commencé dugg nii du sa cër. parce que écurie bi dafa am nu muy doxee. ñii nii say adversaire lañ waroo seq ak ñoom leneen lu dul lii nga war a seq ak ñoom. lii waroo koo seq ak ñoom say poulain nga ko war a seqal. bu fekkee dafa incité wala mu kon konni ci loolu ñu dàq koy écrit ba hmm. dans les normes noonu la war a mën a demee mais tey Moustapha Gueye dàq nañ ko Fass loolu moom lu ñuy dégg lay doon mais euh, parce que Moustapha Gueye moom mooy Fass ah mais moom mooy Fass mais boo xoolee Papa Sow euh, bokk na ci li ko jëlee Fass buñ ko laajee def na dafa àndut ak daa àndut ak ñoom ci ci yenn règlement yi euh, ba bi mu jugee Fass bi ñu waxee coowal moom ak Père Moustapha Gueye ku ne dégg na ko bam naan ay doomam laa rus parce que bëgguma ay coow te bëgguma ñuy wax ci lenn loo xamante ne après làmb dafay ñaaw Gris Bordeaux tey bu ñu waatee taxaw ci taxawaay boobu euh, bëgg a wax ci leneen loo xamante ne Père Moustapha mu ngi koy dund ak beneen mbër mu metti ko jot naw kon waa Fass ñoom seen bopp ñu taxaw seetlu euh, waxtaanaat seen biir. per Moustapha Gueye de Père Moustapha Gueye moom it mu xool fi mu war a mën a teg tànkam parce que du ñun nag euh, ñoo ko koy jàngal wala ñu wax ko ko waaye pour man boo yoree ay écrit moom euh, li li wolof naan mbéju jàmbur moom sa bopp du ci metti Balla Gaye 2 ci adversaire la tey lu mën a xew làmb da leen boole te làmb boolewaat na leen. léegi nag fi mu toll nii ñoom waa écurie bi ci boppam mbër yi fa nekk est-ce que du leen indil jeexi jaaxa ci seen diggante ak écurie bi ak mbëru écurie bi parce que écurie boo dem rek am na ñoo xamante ne dañuy féetewoo ci côté Pierre ñoo xam ne dañuy féetewoo ci côté Giri léegi ñoom ñooñu noonu mbër yooyu nga xam ne ci écurie ba lañ nekk balaa écurie ba de tas wala muy am jeexi jaaxa seen diggante ñoom mbër yi ban taxawaay la ñu war a am waaw mbër moom Euh, mën naa ne ay sikkim lañ rek geesoo leen yóbbaale hmm. parce que dina difficile trop pour ñu mën a choisir parti bi ñu jëm hmm. euh, ndax euh, dafa am luy luy luy rek mais dara dara xewagu fa hmm. mais liy saxat nag ba moytuwul ci tàkk la jëm te bu tàkkee ñi ci ñi ci perte tey mooy mooy mbër yu ndaw yi nga xam ne mënoon nañoo gagné ci expérience u Giri gagné ci expérience Moustapha Gueye ba pare gañee ci relation Giri gagné ci relation Moustapha Gueye ñun ñoo ci perte mais tey Giri Bordeaux amatul luñ ciy perte Hmm. Moustapha Gueye amagul amatul luñ ciy perte que li muy liggéey ci làmb def na ko ba pare ñaanam wàcc hmm. Gris Bordeaux mën a tëbbare plus de trois saisons presque hmm. parce moom jeexal na carrière jeex na ba pare euh, li des mooy rafetal ko rek ba mën a génn par la grande porte donc foofu ñoom amatuñ luñ ciy perte te Gris expérience bi mu am ci làmb aussi vingt ans de plus nga def ko ci làmb tey bu demalatee boppam it mën naa demal boppam dëgg la Eumeu Sène gis nañ ko fi. demal na mm. boppam teew bi mu demalee boppam la nekk roi des arènes. Mm. donc gis nañ fi mbër yu bëri yoo xamante ni dem nañ ba benn instant ñu demal seen bopp wala ñu ñibbi fa ñu nekkoon. Mm. loolu yàqu ci dara mais ñoom ñaar bu ñu àndee aussi day gën a baax ci ñoom day gën a baax aussi ci ci ci ci gone yi. mais foofu noonu bu ñu sàgganee sàggan sàggan ba coow loolu di commencé dem euh, rectifié wuñu ko ba mu law ba jëm kaw bu boobaa gone yi ñoo ci perte. boobaa euh, Fass mën na am ay équipe yu bari. Gris bu beree yoonam dana am mbooloo mu mu yóbbaale. Mm. bu boobaa aussi Père Moustapha Gueye bu créé écurie wala école de tam dina am ay booy yu mu yóbbaale mais dana am ñeneen ñoo xamante ni dañ ay ay dañuy dañuy duñu xam fan lañ jëm. Mm. parce que seq nañoo kee jàmm seq nañoo kii ñaar dañuy obligé bàyyi làmb wala ñu obligé génn dem feneen. Mm. boobaa ñetti parti lay nekk. te loolu noonu am na lu ko gën ndax faar su nekk nii bari ñu bari boo xamante ne nii tey Euh, bu ñu tasee def ñetti parti dañ leen jural dara ndax nii ñu toll nii rek gis nga seen bilan bi ni mu demee. Hmm. donc bokkut bilan bi ñu leen xamee woon. kon li gën ci ñoom moom mooy ñu booloo ñu teel a rectifier problème bi xam ne loolu day am ci écrit yu nekk day am ci problème bu nekk dafay am ci écrit mais teel a waxtaan teel a dindiku rek. Hmm. solution am. teel a waxtaan teel a dindiku mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci jàngat làmb ma àndoon ci ak sama xarit bi Serigne Bassirou borom mbég mectar mi ñu waxtaanee ci lépp loo xamante ni bëgg nañ mu jëmale làmb kanam. liñ ci waxtaanee yëpp bëgg écrit bi yeeg mbër yeeg entraîneur yi ñoom ñëpp ñu gisewaat dajaloo toog waxtaan ci seen biir ndax làmb fi mu toll nii kon benn activité amatul jot na écrit yi ñu toogaat waxtaan seen biir xool leen manqué ñu defaraat ko ci seen biir. parce que loolu nag yaakaar naa moo bokk ci luy jëmale écrit kanam loolu mooy bokk ci luy jëmale làmb kanam sëñ Bas ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi ñu ànd. waaw Ba Djili yow it cant ak ngërëm la. Hmm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax mission bi am na solo bonne continuation rek hmm. euh, affaire moom euh, saa yu dox di neex rek gaa yi dina ko wax ci suuf. Hmm. <laughs> waaw. <laughs> kon ñuy tàggu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox ñëpp dig daje ba ëllëg incha allah. ju daal doy la borom xel jaajëf sëriñ Basiirou borom mbég meeg taar mi mbokk yi ñu leen di jëfal bu baax a baax a baax euh, ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmp deuxième partie bi dinaa ci ànd ak Ousseyn ñu waxtaanee équipe bu Sosaw ay ca Ousseyn.